fasoq cuuraay bu xaw a xonq lay doon nii jaaykati cuuraay yépp ko am képp ku dem fu cuuraay am dana ko am fasoq nga boole leen dëbb boo ko ginnaaw boo ko weeree ba mbow képp koo xam ne lu mel na ñuy wax shayatin da koo jàpp saytaane wala yu mel noonu soo ko ci suuree ci kàttanu yàlla suñ borom dana def taw ko bàyyi ba tayit soo jëlee garab gi ni wax xay xay garab lay doon goo xam ne euh, boo ko xasee biir gi day xonq nga dëbb sunguf sa boole ko ak Euh, sungufu sibil soosé laal ci tuuti xorom boo ko sangoo moom it dana raxas yaram raxas yaram nag mooy catak liggéey gàllankoor yu bari yum ca fekk suñ borom ci kattanam mën na ko caa dindi ba tey soo jëlee béjjën ba euh, wut fexe ba wut lu bokk ci yetu gumba ak euh, yére yu bokk ci ku mun munta wax muuma ki wax muuma nga wuti saabu bu doon sange néew bu des nga fexe ba damm ci yetu gumba tuuti sox ko ci biir ak sagaru muuma euh, daal di fexe ba wut saabu bu doon sange néew nga sank sakki ko buntu béjjén ba béjjén bi day am pax daal di jël morso bu doon sange néew mu des nga nga laxase ko ko foo ko teg insha allahu rabbi bu fekkee yàlla ànd na ci kenn du fa jël bu ci yàlla àndee de su fa jël waaw kenn du fa jël dara kon nday mel ne làmboo na ay njariñ yu baree baree baree bare yooyu yëpp doon na yoo xam ne daanaka ay njariñ la xaj na sax euh, njariñ yi ëpp na loolu waaye xaj na lii rek lañu ci suñ jot may lépp luñ leen ci waxit waxuñu leen ko nii ngir euh, suñ njariñul bopp wala dañ leen ko wax ngir bëgg leen a jariñ ndax lu mu ci doon mujarrabun saxiix la maanaam lu jëfandikoo ñun la ba am ci ay résultats yàlla xamal ñu ko ñu bëgg ko labiré mboolem jullit ñi euh, ndax xam-xam moom du jariñ lu dul ne dañ ko tasaare bu dee xam-xam bu am njariñ képp koo xam ne nag eh, suñ borom dogal na nga dégg ko ca cam doy la ca nga jëfandikoo ko ñoo ngi lay ñaan suñ borom nga ñaanal ñu suñ borom defal ñu ak yàgg waaye ñoo ngi ñaanit lépp lu ci waay jëfandikoo suñ borom defal ko ci barke waaye lépp lu ci waay di defit na ci jiital yàlla na ci jiital xam ne yàlla rek kay nangu waaye nag lépp lu ci defit na ci yéene lam ci jublu ndax innamal ahmaalu bi niyaati lépp loo ci def nel maa ngi yéene ci suñ borom